ñu génn ko ñu bàyyi la nga nuyoo ak lan ngay wax sa diggante ak Serigne Dia Bombardier. waaw Fadam maa lay nuyo di la ziar di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan live bi donc vraiment euh, fu nga génn moom noonu la quoi parce que tey euh, man damay wax ne à chaque fois sénégalais buy dem di dem di compétir à l'extérieur rek man coach Dia maa ngi ànd ak yow. donc lu mu la le a conseiller naa conseiller lu mu wax lu lu mu wax lu si lu ne combattant sénégalais donc euh, man maa ngi parce que drapeau Sénégal la ñuy donc daal euh, euh, Bombardier nag moom sama sama sama Mm-hmm. donc naka jekk sa yu amé combat dina ma woo laaj ma sama xalaat ma ma jox ko si tamit waaw vraiment parce que drapeau Sénégal lay représenté mm-hmm. donc vraiment waaw di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam bu sedd buy mm-hmm. te am nañ ci yaakaar ne eh, dina gagné combat am bi waaw incha allah rabi mais buntu yi mu ibbil sénégalais yi rawatina lutteurs Sénégal yi

dañ ko war a ñaanal yàlla mm-hmm. vraiment dañ ko war a décorer sax tamit parce que tey def na fi lu ne ci làmb def na fi lu nekk ci MMA donc daal soo demee ba ba sénégalais yi ba waa polonais yi xam sénégal ah bombardier moo tax donc vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam bu sedd guy guy guy guy guy guy te rabbi xam naa ne moom ah combat boobu dina si si génn daal waaw. allahumma xam nga tamit euh, euh, sport Sénégal gis nañ ne Bombardier da ci ibbi benn buntu boo xam ne nii jafewoon na mbër mu mag ibbi ko. Mhm. Bombardier tey jii buñ demee ba ñu gis ay ay ay ay yu ndaw yi génn ñu xam leen ci lutte Sénégal ñu dem bay commencé cartonné ku ni rek rek di di génn di def ay preuve ci fee nga xam ne nii mooy MMA bi. kon Bombardier wane na buntu bu baax boo xam ne ci làmb ndax ay champion fi di am ay problème mu combat di ay am ay problème moyen kon tey jii bu fekkee ne dafa nii ci làmb dafa jot waa làmb jox ko li nga xam ne nii moom la gën a moom nga xam ne nii mooy cëram ci làmb. dëgg la dëgg la mais moom euh, dañ ko wala xam nga ku nekk tey deux fois champion deux fois roi des arènes tey mm-hmm. kooku kooku. Euh, na boo daal du dëgg mm. waaw mais euh, mais sportif la professionnel la donc vraiment mu ngi béy waaram donc euh, dama bëgg nag gars yi yëpp yi nga xam ne tey ay xale lañ mm. ñu rey ñu rey si moom parce que exemple la mm. waaw vraiment waaw loolu daal la mënoon wax si. a roy yan ngay il faut que il faut nga professionnel il faut que nga que, mhm. nga nga entraînement hygiène de vie donc vraiment euh, vraiment gem gem def tamit combat

yoo xam ne mun nañ jàppale yenn mbëri mm-hmm. waaw waaw tey su demee tey ba bàyyi mun na tey tey di jël ay professionnel di leen yóbbu mm-hmm. Mm-hmm. donc voilà ndax kon tey jii Bombardier li mu ibbee ci kaawu MMA ba tey jii di ci compétir ci combat yu mag yi moom ibbi na ci bunt boo xam ni tey jii bu demoon sax ba arrêté ci MMA mën naa nekk ci buntu xale yi di leen di leen mag pour ñu mën fay nekk professionnel il faut nga jege leen. nga nga bañ a rëy. nga bañ a rëy surtout ça. bul wax ne nag écrit bi laa bokk du dem si du ma di ko laaj parce que tamit am na cadre am na carnet d'

buñ la buñ la proposé benn MMA rek nga ne nga ne xaaral ma dem xaaral ma dem non MMA du noonu donc il faut nga am si ay valise il faut valise bi fees dell dafa mel ni tey fa dem ngay voyager ñu ne la 23 trois kilos la nga may di nga si di nga si def sa valise di nga si def saabu di nga si say say yére di nga si def say affaire di nga si def say lépp MMA noonu la mel sooy dem MMA il faut que sa bagage yi fees dell waaw su feesee dal nag boobu moom nga entraîné ah boobu moom war nga mën war nga mën dem di compétir quoi dem MMA ça veut dire que dangaa def làmb rek damay dem MMA non làmb ak MMA am na am na benn pourcentage bi nga xam ne tey làmb ji am na ko am na ko am na ko si si MMA bi mooy bëre bi ak xeex bi te xeex bi tamit il faut ñoom ñu jàngat xeex bi. Mm-hmm. dur tank il faut ñu ko au sol aussi parce que tay mun nga de mm-hmm. ah, te xam nu terminer lolou tamit lu au sol bi wa au sol bi wa mm-hmm. mais mais mais mais da damay damay am ne kon su meuna moy lo meuna bëri ci lit avec bu Sénégal wala simple bo ñëw ci MMA bi dañ lay corriger dañ lay corriger mm-hmm.

yooyu yëpp dafa dafa dafa dafa am importance si si MMA waaw mais Fadam dañ ma bàyyi nag ma nuyu sama sama gars yi nga xam ne ñu ngi si Instagram bi. les les Fassois ah hein, l' international Leyti Ndiaye Leyti Ndiaye hein. ah donc euh, Ramses création bi nga xam ne tey mooy sponsor coach Diago donc vraiment daal euh, maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne tey maa ngi ñu ngi ñu ngi si live bi mais daal Fadam lu mu a wax daal mooy. MMA soo koy def il faut sa valise fees dell. mais maa ngi dégg nga expliqué valise dell comme tey jii MMA booy ñëw dafa am ci wàllu entraînement comme ni nga mën a ñëw ci làmb sax indi leen li dese leen li MMA fekkum loolu. waaw ok parce que xam nga fële bëri door kese la soo daanee sa mbër sa mbër yegg suuf gañe nga mais MMA si suuf la combat du commencé. si kaw si kaw lay commencé jeexee si suuf waaw ay clé de bras xam nga ay soumission yooyu yëpp da ko war a jàng waaw moo tax tey MMA soo fay dem il faut que nga nga nga am bagage yu yu yu baax quoi vraiment. waaw mais ba léegi yaa ngi ciy bagage yu baax tey jii suñu la doon dégg ci loo xam ne lu mënta ñàkk ci. athlète bi nga xam ne day compétir ji MMA lan nga xam ne nii moom mënut a ñàkk ci moom. Euh, comprendre ma question mooy comme athlète tey jii day compétir ji MMA. ndax maa te tey jii képp koo xam ne nii da ngay compétir MMA mënoo ñàkk ay bagages loolu lu ñu nangu la mais mm. tey jii lan nga xam ne nii sax tey jii ki nga xam ne nii bëgg naa compétir MMA te bagages yooyu ngay wax mënu koo matal lépp mais lan nga xam ne mënut a ñàkk ci moom lan. nga moom boo ko il faut nga jàng xam nga Sénégal dañu baaxoo di jàng boxe française boxe française il faut nga jàng ko xam au moins lan la ñuy wékkee tànk il faut tamit nga jàng nu ñuy encaissé coup tànk loolu important. coup tànk encaissé. waaw tànk il faut que nous nga nous ah, ni ñuy encaissé ni impact exactement waaw donc léegi il faut nga nous tam boxe anglaise bu baax xam na nan direct xam nooy dóoree Nous xam nooy dóoree esquive am nu esquiver am nuy dorer crochet am nan ngay donc loolu su paree nga yegg si suuf waa ji su su su la su la nan nga le def ba ko c'est important c'est important. kon MMA comme lit avec frappe bii nga xamne mom la ñuy dund ñu Sénégal bo àggee ni ci suuf jeex na mais MMA bo àggee ci suuf day mel ci lay doog a tàmbali. ci lay doog a tàmbali nag te loolu moo lay épuisé hmm. loolu mo lay sonal donc il faut nga am condition physique bu doy seuk parce que MMA 5 minutes là 5 minutes bo xamne day intense so am condition physique do dem hmm. Hmm. waaw soo amul condition physique do dem donc soo amee soo amul cardio bu doy doy doy doy doo dem. ndax diggante premier souffle ak deuxième souffle. foofu noonu day exactement cinq minutes cinq minutes nga jàpp ko MMA ku ko def mm-hmm. jàmbaar ku ko def rek jàmbaar. mooy premier seen premier daje boobu ñuy daje noonu. waaw kay même même trois minutes si boxe rek trois minutes si boxe rek ah dafa métti cinquante mois MMA nga xam ne yëpp lay dajaloo xam nga bu dee box boxe anglaise nga xam ne point yi rek la ñuy joxe donc euh, boobu boobu box anglaise rek ngay def donc ay point rek ngay dóor mm-hmm. sur trois minutes mm-hmm. imaginez MMA nga def cinq minutes cinq minutes boo xam ne day am wekk day am coup de poing day am au sol nga yéeg xam nga ah loolu moom il faut nga nga nga nga nga. kon juste ma la déggee mooy kon MMA amul sens interdit ci côté bi ngay dóor amul. non am na am na ay sens interdit la kenn du dóor si loos amoo droit dóor si loos fii amoo droit dóor ko. ah waaw. waaw. amoo droit waaw amoo droit tamit waa ji nekk si suuf nga koy wékk. Zo denk tere terecht. ji su nekkee si suuf kenn amul doo droit wekk dóor tànk. mais tey tey jii tey jii Sénégal gëm nga ne am na ay yeneen lutteurs yoo xam ne nii mën nañoo cartonné lutte MMA ci MMA bi ba tey jii ba jël fa benn record bi teeku ci seen loxo. bilaay am na soo jëlee soo jëlee ku mel ni Modou Lo Modou Lo soo ko soo ko yóbbuwoon MMA dina def feu et flamme nga jël nga jël mbër bi nga xam ne tey fran soo ko yóbbuwoon tey mun na si am mun na si am jéego bu bu xam nga donc am na ay yeneen loolu rek ñoon rek laa mën na lim quoi mais soo gisee ay regret regret tamit am na potentiel. Mm-hmm. soo gis soo gisee ay Siteu Siteu tamit am na potentiel mais. tamit il faut ñu dem ñu dem jël ay coach il ñu hmm. ay coach professionnel ñoo xam ne dañ leen accompagner donc ñu tàggat leen ah tette leen su ko defee ñoom nañ mën a suñu amee combat bi ñu si mën a génn waaw dina dina bëri li muy dimbale ci li avec frappe Sénégal ah, ndax léegi xale yi ndax Bombardier dama ko laaj benn jour ki benn page mi muy def benn direct ma dugg ci mu ne ma dafa dem ba dëkk bii nga xam ne nii fa la Bombardier nekk di xeex nii dañ ne ko dem nañ ba ñoom dañoo soxla ay athlètes yoo xam ne nii Sénégal pour ñoom ñu mën a compétir ci jàng xeex bi pour mën koo ñëw compétir ci foofu. waaw te loolu Bombardier lañ ko pour nga xam ni moo leen nekkal daanaka Afrique. waaw xam nga xam nga loolu laal dem wax léegi fa kii euh, Fadam ma ne su fekkee ne tey Bombardier porte la. Mm-hmm. Bombardier bunt la. donc léegi ca am na carnet d' adresse carnet d' adresse mooy xam na ay promoteur Bombardier mm. léegi xam nañ ko Pologne mm. xam nga donc ku simu bugg def MMA demal nga nga jege ko xam nga xëy na moom dina la mën a dimbale teg la si ay cote yu baax ba nga xam ne tey mun na la wutal contrat nga dem di di di compétir parce que tey soo gisee suñu lutteurs yi am nañ ay potentiel mais moyen moo leen di manqué ak wàllu coaching wàllu coaching xam nga tey su fekkee da nga jël coaching tey nga jël coach un coach professionnel koo xam ne euh, euh, da lay jàngal fooy doore dina la jàngal ak loo xam ne tey jàngoo ko woon donc ça veut dire que tey xam nga tey suñu mbër tey am na ñoo xam ne tey dañuy takkal gan rek di lay wax ay dóoral gauche Mm-hmm. te xa te xamoo fu lay dóore. Mm-hmm. xam nga dafa am stratégie de combat dafa am stratégie de de de coaching. Mm-hmm. waaw du n'importe qui moo koy nekk. soo bëggee coaching da ngay jàng xam nan ngay coacher am benn stratégie am benn benn benn benn benn benn esprit bi nga xam ne tey euh, tey euh, am nga am nga wàllu wàllu wàllu wàllu xam-xam. si fan la ñuy dóoree ban instant nga war a dóor. Mhm. kañ nga war a teg stratégie xam nga ak technique ak tactique. Mhm. loolu mooy coaching. kon kon li nga wax nii li ma ci jàngee bari na. Mhm. ndax yaakaar naa ne ñu bari ñu naan ay coach Sénégal. ci gauche droite rek lañ taxaw. xam nga tey ko tey dafa neex fa dem. nga ñëw euh, ne kii mooy sama coach nga ñëw ne tey coach bi tey moo lay takkal moo lay takkal gant li la wax ay dóoral gauche droite dóor yomb na ngay dóor gauche droite yomb na mais xam fu ngay dóore ak kañ nga war a dóor ak fan fooy dure tamit loolu c'est important coaching kenn du ko fooye coaching da nga koy jàng course li ngay wax nii dafa am solo ndax da ngay gis benn poids lourd bu am cent quarante kilo wala cent trente kilos ba cent dix kilos dee ak cent ku ku am poids boobu entraîné combat boo huit mois mais boo dóoree nit warut a taxaw te da gis ko di ko dóor lu ay quinze coups te kooku du yéeg ne sax dóor nañu koy ko. waaw xam nga tey am na ñoo xam ne dañuy dañuy ñëw jël benn coach ñu leen dóoral gauche droite dóoral uppercut dóoral crochet. ñu dem si combat bi train de ñëw def leneen mm-hmm. moo tax ma ne le coaching tam ça le coaching ça s'apprend mm-hmm. le coaching ça s'apprend gis nga entraînement ba ngay entraîné si salle soo ko une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois toujours la même chose si jour combat bi di nga gis mbër bi jour combat bi affaire bi day ñëw rek lal basam waaw day ñëw rek lal basam ça veut dire que lépp lu nga dem entraînement def si entraînement da ngay ñëw rek def ko si combat bi loolu hmm. répétition la mais nag il faut nga am benn tactique ak benn technique at benn stratégie bi nga xam ne tey si suuru combat bi sa mbër bi loolu lay def wala combattant bi loolu lay def. Mhm. waaw xam nga rek rek am na fi benn combat MMA bu mu def contre El Ngalani. ak Lamine ñoo def benn Lamine Lutte def benn live Instagram. Mhm. ma wax exactement rek rek lan la def. Mhm. waaw te rek bu mu defee loolu tamit. xam naa ne seetaan live bi bu mu combat boobu noonu la ko bëree. parce que tamit il faut ngay am ay ay ay ay ay ay ay stratégie de combat c'est est important. waaw donc c'est est important. et puis tamit et puis tamit il faut mbëri di jàng sol protège dent parce que tey. parce que tey fa fa dem te ay mbir ne jour combat rek la ñuy procession te sonal dañuy am problème souffle mm-hmm. mais protège dans ko sol entraînement c'est si combat bi su ko parce que c'est important mm-hmm. c'est important donc loolu rek laa laa mënoon wax parce que tey waaw ñàkk ñàkk tàmm protestant damay gis kon li tax mbëri def benn contact kon loolu ñu war a dégager ci énergie seen gémmiñ gi loolu tax ñu yàgg protestant bi non parce que dañuy dañuy ñëw di di nooyeeg di nooyeeg gémmiñ mm-hmm. te protestant war nga mën a nooyeeg gémmiñ war nga mën a nooyeeg sa sa bakkan am na ñoo xam ne seen bakkan bakkan xam nga bakkan c'est important gémmiñ c'est important

moo tax protégeant c'est important ngay jël di ko di ko tàmm. Mm-hmm. di ko di ko bëree. Mm-hmm. di ko entraîner quoi. Mm-hmm. waaw. mais mais mais mais ñu dikkat ci Bombardier mi nga xam ne moo war a compétir euh, weekend bi ndax athlète bi muy dajal ndax xam nga ko bu baax. waaw xam nañ ko xam nañ ko brésilien brésilien la. brésilien bu nga xam ne tey bëri na ay combat mm-hmm. mais tamit koo xam ne njool la ah njool la soo xoolee moom Bombardier ñoo bokk tay mm-hmm. donc vraiment euh, euh, foofu laa mën a yem quoi parce que tamit <laughs> dama am benn benn benn euh, cabinet coaching bo nga xam ne tey loolu mooy suñu liggéey quoi mm-hmm. donc euh, donc du quoi mais mhm, mhm. voilà voilà. Mhm. mais ñi bëgg nañu ñu xel lit avec frappe bi baxna lool waye lañu ut affaire yi boole lu mel MMA bi mën na leen lu champion ñu nekkoon ci walu lamb tey jii ñoom ñu dem ba am problème combat kon tey ji hmm. mën a euh, programme ñëw ci MMA bi waaw parce que parce que tey damay ne suñu suñu athlète yi suñu combattant yi am nañ potentiel bu bu bu bëri tey euh, suñu leader yi war nañ dem mën a def dem judo mm-hmm. pourquoi pas ñu dem def ay compétition ñu dem takk kimono dem si dem si club yi jël fa ay licence xam nga dem di compétir aussi xam nga donc suñu lutteurs yi ñi nga xam ne tey ñu ngi bëri war nañ mën a am ay ay ay ay ay boxeur ñu mm-hmm. dem si sa comprendre mm-hmm. donc donc voilà donc am nañ ay ay athlètes yu baax mais nag xam nga il faut ñu jàppale leen aussi xam ñu ñoom tamit aussi aussi il faut ñu gëm tam li ñuy def comprendre mm-hmm. donc donc voilà am nañ ay potentiel yu bëri yi nga xam ne tey mën nañ ko exploiter waaw mais daal mais daal mm-hmm. mm, mais daal man daal bëgg naa tamit lenn loo xam ne nii ndaw ñi gën ko bàyyi xel rawatina njabootu làmb ndax yaakaar nañ ne làmb da ngay bëri 15 combat di am problème loolu ndékkee yaakaar naa ne tey jii ñu jël ko boole ko yeneen sport dina am tey jii lu bari loo xam ne dina leen ko mën a juróo ci seen carrière. Mhm. yaakaar naa ku mel ni tey jii rëg-rëg bu làmb Sénégal doxu tamit moom je m'en fous bu làmb doxee bu doxul je m'en ndax am na ci leneen beneen sport boo xam ne nii ci sukkandiku te mu gën a nekk sport professionnel. Mhm. làmb nag feeñee mais tey jii am boo xam ne moom am na ko boo xam ne nii jéem na séntu ji yeneen sport yi bokk ak yooyu te am na ay moromam yi nekk Sénégal yoo xam ne nii tey jii toll ci seen digg doole nekk ay xale. war nañoo mën a dem wàcc ci ring commencé suivre MMA tuuti nànk-nànk. Mm-hmm. dina tax bu ay buntu feeñee ñu mën ko exploité. Mm-hmm. Mm-hmm. dëgg la dëgg la parce que tey bu ñu yem sax rek si si làmb ji quoi. il faut ñu dem di entraîner dem dem si yenn club yi jàng ay MMA jàng ay ay yeneen sport quoi yi nga xam ne tey nu euh, ñu leen si woo rek nañ mën a dem fekk ji ko quoi. waaw. Bachir kontaan naa mais maa la gën a kontaan Fadam xam nga. waaw waxoon bàyyi woon naa ay genre live nag mais yooyu am si yooyu am si dugal. non non non hmm? yow ne nii dafa ñu xam yaay kan. dëgg la. Sénégalais day yéex a xam nitam. dëgg la. Sénégalais a xam yan monument la am te yow ci hmm. monument. merci jërëjëf dafa am loo xam yàlla dala ko may. ba tubaab bi di ko partage ak yow. kon doomu réew mi a partagé ak yow. dëgg la dëgg la dëgg la rawatina wàllu MMA bii nga xam ne nii ndaw ji dañ koy dañ ci dañ ciy commencé dugg. dafa jot di la contacter di xam yaay kan jëm laa dugg ndax tey jii ñoom ñoo am njëriñ ci yow mais yow amoo njëriñ ci ñoom. dëgg la dëgg la surtout pour nga léeg-léeg ngay xam nañ ne am nga loo amal réew mi. xam nañ ne am na njëriñ lu amal réew mi ndax man ñëpp entraînement mais xeetu entraînement yi may gis ci yow nga di ko partager sa rare laa koy gis ci coach yoo xam ne nii yor na ay athlète dëgg la dëgg la loolu ñu bàyyi xel bu baax ndax ñu tamit ay ndaw lañ nekk ci làmb waaye yaakaar nañu suñu xam-xam sax ñaanuñu yàlla rek même ci làmb kese ndax ñuy gis leneen lu bokk ak làmb dëgg la dëgg la c'est que xam nga man dama dama dama teel dama teel dugg si sport de combat

Mm-hmm. su mu ñëwee si boxe française bi nga ne ma non mais kii xanaa lépp la jàng <laughs> mais c'est que nag bëggu bëggu explorer parce que ñun ay passionné lañ. Mm-hmm. am nga ay passionné lañ donc euh, am na sama benn nijaay bu nga xam ne tey euh, nekkoon na presque six fois champion d'Afrique muy Ankeny Ndiabone xam nga donc euh, donc nekkoon judoka bu mag bu ñëpp ràññee Sénégal. Mhm. donc am na benn sama papa bu ñuy wax bu Aïda xam nga moom yàlla na ko yàlla yërëm moom tamit man moo ma moo ma tàggat depuis tant xane moom ma yore woon judo xam nga yor ma si yor ma lépp quoi donc moo tax tey tey regretté wu ma tey lu ma duggee si sport parce que sport donc euh, da nga koy daal da nga koy bëgg tamit. mais am na benn question boo sax du mën a koy bëgg a laaj. yaa ngi bàyyi xel bis ñoo ñu yoxlu équipe nationale yi nga xamante ji ñooy génn di compétir ci ci wàllu judo wala yenn affaire yu bari yooyu yaa ngi koy bàyyi xel. waaw maa ngi si maa ngi si bàyyi xel donc euh, ah loolu moom euh, comme ñun Sénégal moo ñu taxaw a jóg. Mm-hmm. dëgg te dañ ne bëgg sa réew si si jaamu yàlla la bokk. Mm-hmm. donc tey tey tey moom. Euh,

dañ si bàyyi xel donc sa bëgg làmb dañ ci bàyyi xel si liggéey bu ngay def nii tamit vraiment dañ ciy gis njëriñ waaw moo tax yow dañ lay ñaanal yàlla rek yàlla may la gudd fan ak wër yàlla sàmm bu baax a baax a baax a baax donc si lu ngay def ah yàlla may la si xewal yu yu yu yu sa njortuwaay et puis et puis et puis vraiment daal man damay kontaan su may su may déglu say say say say interview damay kontaan tamit su may déglu say say say conseil quoi donc vraiment waaw yàlla yàlla yàlla fay quoi vraiment di nuyu sa waay jàmm waaw maa ngi am jàmm maa ngi am jàmm alhamdulilah sant di jégalu nag non amul problème ñoo ñoo ñoo fa sëñ falam waaw. sëñ maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay. jërëjëf jërëjëf. kootu nañ la libéré. di kon waaw ah, kontaan naa kontaan naa. maa ngi kontaan si yow bu baax de. jaajëf jaajëf jaajëf nañ ko bàyyi mu dem noppalu ji ndax sonn na. waaw. mais. awa ji ngi leen di ñaanal jàmm bu baax. Serigne Dia Bombardier. war a compétir waaw maa ngi koy dégg maa ngi koy dégg te mais damay kii dafa am benn affaire mu bëggoon wax si li ko su wax quoi si maanaam affaire mbër yeeg yooyu MMA bi mm-hmm. parce que MMA doon na loo xamante ni maanaam ñun am nañ physique am nañ gabarit mais mu ñu entraînement parce que ah, première jànge boxe mm-hmm. te mbëri Sénégal damay dégg kii moo mën a boxe kii moo mën a boxe mais ba léegi kenn mënu fee boxe Fadam buñ naxante quoi dañuy wax gars yi li nga xam ne mooy dëgg MMA dafa metti MMA mm-hmm. yombul. Mm-hmm. léegi yow mënoo jóg rek bëgg a si ci MMA xam nga rek ñu ni mën ngaa xeex comme Reug parce que